ci lu jëm ci ñaari gendarme yi kenn ki di Fulbert Samb ak Didier Badji moom Fadilou Keita nee nañu dafa bindoon ne ñaari grade yi nag nan la ñuy demee na mes na mentañ te ñi nga xam ne ñooy waa gendarmerie yi ñu yàbbi si ba tey ci biir journal bi nee nañu Fadilou Keita dafa waxoon ne ñaari gendarme yi dañu leen a enlever état bu Sénégal da leen a pexe ba pare bëgg a taafantaloo li nga xam ne moo jëm ci wàllum lapp yéen kaay gi di bés bi nee na nga xam ne nag ñooy waa Pastef ñoom dañoo mer nee na ñu jamono ji dañuy traqué ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane waaye nag loolee duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ndax ñoom Bassirou Diomaye Faye nee ñu jege ñaale Ousmane Sonko yi ñoo ngi leen di jàpp di leen di arrêté di leen di dugal ci kasu bi entourage Ousmane Sonko yéene kaay gi di 24 heures ñu xëy fekk fa Bassirou Diomaye nee na li am ci réew bu ñu waxante dëgg mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax nag kii nga xam ne mooy Amath Suzanne Camara fii la taxaw ba jéggu dara a rey te dara fekku ko ci yéene kaay gi di lay seko nee na ñi nga xam ne nag ñooy waa Pastef li ñuy sàkko maanaam am nuwulie te nag bàyyi mbir mii nga xam ne ay caaxaan nekk tappale la ñoom Bassirou Diomaye Faye nee nañu nag Sénégal mënuñu nag di continuer maanaam nekk ci benn xale bu jigéen boo xam ne bu ndaw la ñu koy manipuler ngir nag bëgg a taal mi loole nag ci boppam ñu ko war a bàyyi ndax ay caaxaan nekk tappale la yéen kaay gii di Walf Fadjri nee na ñaari député yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Yewwi Askan Wi di Massata Samb ak Mamadou Niang te nag ñu joxar bi leen baaraamu tuuma ci lu jëm ci Dour Amy Ndiaye ñaar ñi soo muy tuule danañu dugg ni ndax ni ki ci conseil des ministres bi njiitu réew mi di président Macky leer nee ministre bi mboolem loo xam lu ngeen war a jël ci ay matukaay ngir nag ñu daal leen di teg ci yoon yoon doxul liggéeyam ba mu mat sëkk na ko def yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na kuréel gi nga xam ne moo ëmb taskatu xabaar yi démb amal nañu ab conseil des médias ñoom nag jamono ji li nga xam ne moom la ñuy sàkko maanaam ñu bàyyi journaliste Pape Alé Niang ñoom Ibrahima Lissa Faye nee nañu nag nag bu boobaa ñun pare nañ ngir dugg kaso ndax boycotté lépp loo xam ne jëm na ci activité yu gouvernement bi di amal ndax li ñuy sàkko mooy Pape Alé Niang ñu daal di koy libéré yéen kaay ñu xibaar naan ñu Sitor Ndour mi nga xam ne dañu ko joxar bi baaraamu tuuma ci lu jëm ci wàllum viol weeru ut ba léegi ma ngi ci kasu bi dañu ko tuumal ne dafa yegg ci benn xale jigéen boo xam ne mineur la moom Sitor Ndour moome nag moo nekkoon pes yaabu sayeta jamono ji jëlee nañu ko ko di yi ak faux billets yoo xam ne bi ñu ko xaymaa toll na ci téeméer ak fukk ak ñett ci ay millions ci sunu koppar yéen kaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy waa douane teg na loxo ay faux billets ci autoroute Ila Touba bi ci sortie Thiès bi bi ñu ko xaymaa toll na ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar ci millions yéen kaay gi de la témoin nee na bu ñu waxantee dëgg maanaam jàmmi Sénégal ak daluk Sénégal jamono ji ci loxol juge bi di Maham Diallo ci la nekk jëm ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji bu rëy bu ngante le juge Maham Diallo amee ngir nag daal di génne décision boo xam bu équitable lay doon yéene kaay gi di Vox Populi Adji Sarr moom jamono ji nee na nag ab procès public la soxla nee na Ousmane Sonko xale màgg na ba tey ci journal di Le Quotidien nee na Ousmane Sonko ak Adji Sarr jamono ji gars yi yi yéene kaay gi di Les Échos nee na nag avocat yi Ousmane Sonko yi ñoom doon ngir nag capitaine Touré ñu daal koy convoqué daal koy déglu ngir mu daal di témoigner loole nag am na ndax doyen de juge Maham Diallo sunu làmb xëy def gëstu bu rëy ci écurie Rock énergie bu Modou Lo ak nan la ñuy taxawalee écurie bi ak Modou Lo fan la jaar ba nekk roi des na yéen kaay gi di esat xëy diñu xibaar naan ñu coupe du monde bi xew sa diwaanu Qatar ban star mooy jël coupe du monde bi yóbbu ko dëkkam journal bi nee na Messi lay doon wala Mbappé wala Neymar wala Henri Kane wala CR7 maanaam Cristiano Ronaldo. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may